man dama doon dégg rek programme Sonacos mais xaw ma woon lu xew mais nag ginnaaw bi nga xamee ne euh, directeur bi ñëw na muy Modou jaañ Fada moom laa waxtaanal mu ne ma comme say liggéey yaa ngi liggéey te ñun dañuy liggéey lu tee nga ñëw liggéey ak ñun ma ne ko ah mais man pare naa pour liggéey yéen mu ne ma ñëwal nga seet suñu daal may boole ak ñoom biñ ma boolee ak ñoom it muy Sonacos bu Jurbel man li ma jàngat ci mooy liggéey bu am solo boo xam ne askan wi dañ ko war a xam moo fa nekk ndax nit ñi comprendre luñ dëgg dëgg dëgg programme Sonacos mais man li ma ci jàngate mooy xam naa ne ñun mën nañoo jël suñu gerte mën nañoo jël ci ñoom gerte dem bay ko dikk jaayaat leen ko bu ñu demee ba nawet jotaat ñu joxaat ñu ko ñu bayaat te loolu lu am solo parce que gerte googu day baax ci suuf si ndax surtout gerte gi fi juddoo dellu si waat fi moo tax délégation bi kontaan nañ ci trop di féliciter de Sonacos di féliciter directeur bi. di wax ne sénégalais yi nañ ci gën a bàyyi xel di wax ne président de la république ñu ngi koy ñaan mu gën a jàppale Sonacos ci liggéey bi ndax gis nañ ne mi ngi leen di jàppale mais na leen gën a jàppale ba liñ bëgg ci Sénégal ñu am ko ndax président de la république li ko gën a neex mooy ñi néew doole di jot ci euh, ndimba yi ba man di ci jëfandikoo tey fi ñu jaar wane na ne néew doole yi ñu ngi ci doon jot yéene ko gisal seen bopp ñu demandoo ci ñoom waxtaan ak ñoom ñu ne ñu euh, ñoom day ñu ngi doog gis seen bopp ci yëf yi kon nag euh, ñu ngi leen di ñaan duudu ngeen gën ñoo jàppale gën ñoo gunge parce que ñun du yooyu kese lañu def lu bari lañu def waaye pàcc bi ngeen xam ne moom ngeen ci yor ñu ngi ñaan ñu gën a liggéey ak yéen te ngeen xam ne fas nañ yéen liggéey ak fas nañ yéen fii ci gox bi képp koo xam ne dañ mën nañu jot sa gerte dinañ fexe ba jot ko te gëm naa ne ñi ci ëpp dinañ jot seen gerte te loolu rek moo ci am solo surtout ñi xam ne ñun ñoo leen joxo seen bopp seen gerte gëm naa ne ñun ñoom lañ koy ñun lañ koy jaay parce que dañ ma ko doon wax kon nag ñu ngi lay xamal ne suñ partenariat ak yéen ñu ngi koy gën a jàpp di ko gën a fonk tey di lay félicité duudu ndax gis nañ ne bi nga ñëwee ba tey ak délégation muy tin ñi ngeen àndal gis nañ ni ci suba ba tey nangu génn ànd ak ñun ci li ñuy def te loolu lool rek ñun lu ñu neex la nit ñi xam ne liggéey bi kat ñu ngi ci liggéey fii la toll président de la République mi nga xam ne moo wax Sénégal émergent xam ne ñun ñi ngi jéem a émerger wax dëgg yàlla ku dem ci fi fii ñu jóge tey tournée bi ñu tourné koo gis xam ne askan wi yàkkamti nañ leen a gis te soxla nañ leen Talal, gëna talal suñu sunu loxo sunu diggante yéen di wax ne it nag euh, mën na né jënd gerte gi jotna comme ni ngeen koy waxé fas nañ rapidement danañ fas gaaw soññi sunu bokki baykat yi ba nga xam loolu na gëna gaaw. li ñu fi gis pratiquement dal na xel parce que on a rencontré les producteurs ku ci nekk wax nañu mébétam mais ñun suñu mébét bi gëna ëpp solo mo doon gëna baykat bi par l'intermédiaire de Sadaga am nañu possibilité boobu toog ak baykat yi waxtaan ak ñoom xam li nekk ci ñoom tey nag li nga xamante ni moo fi nekk c'est une première mooy ànd nañoo moom ci benn partenariat boo xamante baykat yi liñ wax gis nañ ci seen ñun tamit wax nañu ak ñoom pour que partenariat bi continuer ci la dépendre parce que Sonacos mébétam yëpp mooy jege jege baykat yi donc ci biir loolu nee nañu leen li nga xamante ni moo indi lii mooy que doomu dëkk bi moom moo am mébét ñëw toog ak sonakos jël fa jiw ñëw jox leen ko donc ñoom it nañu am Pastef gu toll na bu ñu bayee ba pare ñu jël gerte googu delloo ko ko moom mu jaay ko Sonacos partenariat bi mën a continuer parce que lu leen nit bëgg defar defar defar lu nit bëgg changer changer sa vie tey bu fekkee daf lay jox te doo ko ko delloo tôt ou tard partenariat boobu day arrêté donc par l'intermédiaire de Sadaga tey on est rassuré parce que lañ leen joxoon ñoom jiw nañ ko ci tool yi ñun ñëw nañu constater de visu la fa am actuellement ñi ngi toog toll ci stade récolte tey bi ñu àggee ci toolam moom man xalaatuma woon sax ni am na waar wu toll noonu pour man da doon accompagner baykat yi moo taxoon mu jëloon jiw mais moom li nga xamante ni bay na ko ñaari ñaari tool yi ñu visité rek pratiquement suñu xel dafa dal li fi nekk nag mooy ñun Sonacos suñu mébét yëpp mooy nekk ak baykat yi accompagner leen ba ñoom ñu gis ci seen bopp comme ni ko président de la république di waxee nous on est là pour les producteurs su fekkente ni nag baykat bi amna na ci liggéey soufam rek ñun on sera toujours présent à côté de lui yalla def na nag li fi am dal na xel dañuy ñaan rek mu continuer ak euh, partenariat bobu continuer ak Sonacos baykat bu nek mëna am na flaay ca la muy liggéey